bi sallallahu alayhi wa sallama ci xaq ji nga xam ni boroom kër amel na ko soxnaam bokk na ci bañ fas seen diggante can gi war a dox seen diggante nu ko boroom kër ga war a sàmmonteeg moom ba jox ko ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man tasawaja imraatan bi shaddaqin misliha وهو ينوي أن لا يؤديه فهو زان النبي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خمني دمنا داغان جيجين ني ماي كوكو ني واخ كو تيانغا موني واو ño xalami ca ne jigéen ji mu ni waaw danaa ko joxe fekk booba la mu yéene mooy fasu ko yéene joxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kookee attem njaalokat la amee attem njaalokat kon ak can lu foor la ci ab sëy ndax benn la ci ponk yi koy tax kon képp koo xam ne danga jubboog jigéen ci can gi dinaa la ko jox bi sàngam wala waxtu sàngam nanga nga moom waaye bu fekkee ni biñ lay may jigéen ji nag sa yéene mooy duma ko jox dara damay wax bañ may ma ko waaye duma ko jox dara maanaam loole ñu doon tuddeb sëy donte atteb sëy la ca ña ko fas ndax ñoom loole la leen lislaam digal waaye yow mi nga xam ni sa yéene moo doon eh, ñu may la jigéen ci lu dul nga jox ko can yow moom atteb am njaalokat nga amee moom la yonent bi sallallahu alayhi wa wax ba tey ci xàq jigéen ñi ci seen borom kër yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni inna imraata xulixat min dila'in nee na jigéen ci faar lañ ko bind lan tastaqima lak mënoo wax ba mu jub jub de ndax lu dang ci lañ ko bind ci faar waaw wa xalaqa minha zawjaha la maam aadama ci lañu ci faaram lañu sàkk sayyidatuna Hawa waaw moo tax mu ni lan tastaqima laka ala tariqatin munu fexe ba ni ngeen ànd di di di dund mu jube na ko bëggee maanaam néewuñu du jub jigéen xadis bi néewul da jub waaye du jamono bu ne nga tey mën a am njub ga waaw fa in istamtaata biha astamtaata biha wa biha iwaj maanaam jigéen bu ngeen àndee faw ngay am lu la faw deng-deng di am faw ngeen di wuute ay gisiin waaw wa in dahabta tuqiimaha kasrataha wa kasruha talaquha bu fekkenteel ni nag danga ni man kat faar gu dëng gii daal mënuma koo ŋàbbu euh, day jub wala ma euh, sànni ko nee na boo ko jéemee jubbanti ak faar boo ko jéemee jubbanti day damm nee na damm ga mooy passé moo tax fu ngeen fekk euh, sëy bu yàqu bëgg a jubbanti lu munta jub la mooy jigéen ci ci ci day day lu ñu dagge ci goor day lu ñu ci goor motax jigen mënta am sutura lu dafa am borom kër wayé goor itam munta mat lu dafa samp kër mat gi mu bëgg dëgg dëgg Hadis bi bukhari ak muslim yëpp solo nañu ko ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni walaw la xawaau lam taxun usna sawjaha bu dul woon ak sayyidatuna xawa kon jigéen du war du war borom këram waaw lawla xawaau lam taxun unsa sawjaha dahra waaw bu dul woon sayyidatuna Hawa jigéen du wor boroom këram ba faw waaye xool leen ci matadik jigéen ci woyefam bi iblis ñëwee xemmem loo leen garab googee leen suñ borom tere woon naa sayyidatuna Hawa dañu di sàkku ci suñu maam aadama ni ko nañ jëfandiku ci garab gi defe ko nii ñu ko kii digalee ndax moom daa mel ne lu baax rek la ñuy digal eh, bañu laal ko ba waral suñu borom tabaraka wa taala génne leen aljanna loolee nag mooy ndonool jigéen ñi kon jigéen moom woyof la baaxoo jigéen moom woyof la baaxoo ak yomba wëlbati ci yu bari waaye nag góor lañu sant ak dër ak ak ak ak taxaw ak wér ca nekk ndax moo wara moo war yiir jigéen jële nañu ci ku njox muawiyata al qusayri yi radiallahu anhu وحني آه، قلت يا رسول الله ما أحق زوجة أحدنا عليه قال تطعمها لأن الله نن يرن صلى الله عليه وسلم نكون نن لحق سني سخنة تنين أنا مني خنا للكو تطعمها إذا تعمته موي بمجند jëfandiku ci ñam ngeen jëfandiku waale leen maanaam ngeen ngeen nga ngeen boole leen ci seeni dund wa taksuha iza tasayta euh, bokk na ci xàq ji ngeen di leen wodd bu ngeen di wodd mooy góor gu bala nga woddu woddal say soxna teg ni wala tadribil wajha bu ñu defan lu jar ngeen yëkkati seen loxo jëme ci ñoom ba leen leen dóor ci xar kanam waaw wala yuqabbih bu leen leen ñaawal walla tajahur illa fil bayt bu leen leen gàddaay itam bu leen gàddaay seen soxna yi lu dul ca kër ga maanaam li bañ mooy boroom kër gu nekk ca penc ma di gàddaay soxnaam di ko fasal kanam di ko ñëkkal ba ñëpp xam ne danga koo mere loola eh, yonent bi sallallahu alayhi wa tere na ko xeet wi eh, bokk na ci eh, xaq yi nga xam ni jigéen am na jigéen ñi am nañ ko ci seen borom kër yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na akmalul muminina imanan ahsanuhum xulqan wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaihim xadis bi Tirmisi yi soloo na ko yéen saa salaam nee ne ki gën a mat ci yéen ngëm yàlla mooy ki gën a rafet ci yéen ko te neena ki ñi gën ci yéen mooy ñi gën ci seeni soxna waaw maanaam eh, ñi nga xam ne ñoo gën ci seeni soxna waaye ñoo gën ci tànne fi yàlla yi mhm. loolu itam ñu bàyyi ko xel baax maanaam jigéen ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni na ngeen ragal yàlla ci jigéen ñi na ngeen ragal yàlla ci jigéen ñi na ragal yàlla ci jigéen ñi wax ne ndax yéena sàkku jigéen ñi ñu leewalal leen ko ci kaddu yàlla ak ci kóoluteefu yàlla mooy ay baat lañuy jàng ca jàkka ja wala ci jumaa ja tudd yàlla ñaanal diw soxna ñii ñaan ñaan ñii maye maye kon jigéen ñi kóoluteef yàlla ci góor ñi ndax jigéen ñi góor ñi la yàlla wóolu ci ñu sàmmal leen jigéen ñi kon nag wares naa ragal yàlla ci jigéen ñi ci di leen woddu ci di leen dundal ci dëkkoo leen loolu mooy ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa batay bokk na ci xàq yi yi nga xam ni jigéen am na ko ci borom këram jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonent bi salallahu alayhi wasallama nee na diinaarun anfaqatahu fi sabilillahi wa diinaarun anfaqatahu fi raqabatin ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك النبي صلى الله عليه وسلم نينا جبوت أن جبوت دفنا سكينوم ومثال كتير dinaar bi nga xam ne dañ koo financé ci yoon yàlla ak dinaar bi nga xam ne dañ koo financé ci goreel ab jaam ak dinaar bi nga xam ne dañ ko financé ci sarax miskiin ak dinaar bi nga xam ne dañ ko euh, finaase ci euh, sa sa waa kër maanaam saw ñooñ nee na moo gën a màgg foofu ak pay bi nga xam ne danga ko financé ci manam ci ci saw ñoñ yow mo gëna mag ak pay waaw waaw dinaarun anfaqtahu ala ahlika azamuha ajran alladi anfaqtahu ala ahlik manam yor ak njabot manam yor soxna yor ay dom di faire di financer ci ñoom mo xam code ya la moo xam ham eh, ya la mo xam reer ya la xam ca ga anam gulin mana saito ba seen dund ga ñoom moo financé ci yoonu yàlla abjam yam mo goreel ab jam ñoo mo miskin ñoo wala sax mo ëpp ba ولا ينتبي صلى الله عليه وسلم واخ باتي يونس صلى الله عليه وسلم خير رجال امتي الذي لا يتوات لا يتواتلون على اهلهم ويحنون عليهن ولا يظلمون ولا يظلمون ولا يظلمونهن ومن كان عنده امراه falam yakshuha ma yuwaari awrataha wa yutcimuha ma yuqiimu sulbaha kaana xaqan ala al imaami an yufarriqa baynahuma bokk na ci xaq yi nga xam ne jigéen am na ko ci borom këram bu fekkan ni kenn ci góor ñi yor na e, jenn jigéen e, ca defalu ko dara e, maanaam dundalu ko euh, woddu ko dëkkalu ko faju ko bu wéradee xanaa dëkke di ko tooñ mm, di ko di ko mettital du ko wodd koddaay loo xam ni jigéen ja mën na caa sànge ay awraam ndax ñu bàyyi xel ni jigéen dañuy wax ni lu dul xar kanam ak tënkam ak takku takkukaayu jaraam awra la waaye du ko jox aw ñam wu muy mën a dërloo moom jigéen ji neena day yàlla ca imaam ba mu tas booba sëy kon gis ngeen islaam ku sàmm xaqi jigéen la ci ci sëyam sàmm xaqi jigéen la ci sëyam te mooy euh, amul euh, lu gën a màgg amul lu gën a rëy lu nit di jamoo yàlla ci soxnaam lu gën a màgg yërëm soxna sax di ko dundal di ko wodd dëkkoo ko di ko nëbbal itam ay ayibam jële nañ ci xadiisu abi xurayrata radiallahu anhu mu wax ne يلا ننتي نصا سلمني ما من يوم تصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممشكا طلفا مني di tax yor njabot sa fo xeye def ci ñom dara sa fo xeye financer ci ñom bax moni nit ki du xey jamiru xey ludul ñaari malaika daan wàcc nee na menn malaaka mi day wax ne yow yàlla yàlla na nga jox financé kat bi yow yàlla yàlla na nga jox kiy joxe yow yàlla yàlla na nga jox kiy joxe waaw ah nee na am koy wax ni allahuma aati mumsikan telefon ki nga xam ni moom aji téye la aji nay la du du dundalul soxna dundalul doom dundalul kenn warloowul dara malaaka moom dana ñaan suñ boroom mu téye buntub eh, yóom buntub joxeem daas dees na ñaan suñ boroom mu téye ko kon jaboote ak njaboot di leen dundal di leen woddu euh, dëkkoo leen euh, loolu barke bu sax la loolu xéewal gu sax la loolu ak jaamu yàlla gu dëkk la euh, kon war na ci boroom kër bu nekk mu warloo wara war yi ci soxnaam ñu bàyyi xel ni bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waaj di génn àddina bon na ci ndénkaanim li gën a foor mooy jigéen ñi nun leen di yërëme nun leen di dëkkoo nun leen di euh, wadde nan leen leen di yiire nan leen leen di joxe seeni xaq loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndénkaanim lu mujj bokkoon na ca fonkoon na lool waa këram daan leen wutal seeni bànneex ca ya dagan ànd nag ñoom ci woyof ànd ñoom ci yërëm ànd nag ñoom ci ñawant soxna yi ko yàlla dénkoon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ki nga xam ni xeej ji ci moom muy sayyidatna Aïcha ban ko laajee ni ko yonent bi saa sallam lan moo doon jikko mu ni kaana xuluquhul quraan jikkoom moo dal alquraan kon baax na ci boroom kër gu nekk mu jikkoo ci ay soxnaam jikko joo xam ne bu ñu laajee rek ñu ni moo fi gën jikko wala moo fi gën a rafet jikko kon mbokk yi lii moo doon bunt bi nga xam ne ubbi woon nañu ko ci euh, at targhibu fi nikaax ñu ngi sant yàlla yàlla ñu yàlla may digg ak topp ñu ngi ñaan suñ boroom may nuñ fekk yeneen i jataay ak yeneen i buntu in uridu ila lislaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh